Cheikhna na maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Awa. alors ngay cofondateur nekk manager général yi tamit bu Greenmet Farm di lauréat wu ñeenteelum édition salon du startup Afritech bu MEDES tey nag ñuy màggal bés bi nga xamante ne ñoo ngi ko jagleel lépp lu jëm ci wàllum startup lan mooy euh, déjà startup ci ñi nga xamante ne daanaka xamuñu ko. <coughs> alors euh, start une startup c'est euh, mooy entreprise buy doog a judd la maanaam littéralement mooy entreprise buy door euh, door. donc euh, mais particularité am ci innovation la donc dafa doon entreprise boo xamante ne dafa innovant dafa am potentiel bu bu bu fort ci wàllu croissance rapide <laughs> mais aussi euh, dafa am il faut que ñu ràññee ñaar ñi c'est-à-dire que euh, dafa wuuteeg entreprise classique yi ñu xam entreprise classique yi ñu xam ñooñu am nañ déjà business model ci business model boobu nag moo leen di permettre ñu attirer koom-koom ñu créer donc de la richesse mais aussi euh, surtout pour supporter coût euh, coût yi ak mën fay donc euh, actionnaires yi ak équipe yi liggéey ci biir entreprise bi mais nag startup moom dafay nekk di wut business model amagul business model boo xamante ne bu solid la dafay nekk di wut business model mais aussi di tester di di tester marché am. et loolu moo waral nag euh, dafay nekk ci constante évolution de manière itérative. alors lan lay indil nag euh, koom-koomu réewu Sénégal. alors lu mu indil euh, koom-koom réewu Sénégal dafa bëri daanaka fi ñu toll nii par exemple bu ñu bu ñu toppee numérique bi par exemple numérique bi mi ngi contribuer ci cinq pour cent ci PIB au Sénégal juste le numérique donc. lu muy mën a indil euh, Sénégal mooy koom-koom day créer richesse mais aussi day créer emploi daanaka léegi jeunes yu bëri dañuy jàng ba ci école yu kawe bu ñu génnee du ñu am du ñu am xëy léegi nag entrepreneur bi entrepreneuriat bi recours la ci ñoom day tax ñoom ñu am seen liggéeyu bopp ba boole ci tamit dañuy recruter ñeneen yeneen yeneen xale donc ñuy liggéey ak ñoom donc loolu mooy loolu loolu la ñuy mën a indil euh, réew mi. ci loolee sax euh, ndaw ñi dañu gis ne ñu ci bëri euh, dañoo intéressé wu ci domaine bile lan moo ko waral. alors li ko njëkk waral mooy mën nañ wax ne que léegi am na écosystème bu favorable fii nii ci Sénégal en tout cas ci pays francophone yëpp dañu ràññee ni Sénégal actuellement def na ay jéego yu mag yuy permettre entrepreneur yi ñuy mën a épanouir donc ci ci ci écosystème bi. mais aussi xale yu bëri dañuy jàng ba ba pare du ñu am liggéey te dem nañ ba xam ne état mu mënul créer euh, liggéey pour ñëpp donc moo tax ñu su bëri bu ñu comprender loolu ci la ñuy euh, ci ci lañ dem ci domaine entrepreneuriat bi justement pour créer seen propre emploi boole si tamit di di recruter ñeneen yeneen jeunes di liggéey ak ñoom loolu moo waral engouement bi. alors Grumete Farm doon nag euh, start boo xamante ne dafay gunge béykat yi ngir ñu gën a autonome waaye tamit mën a jot ci engrais bi ci ni mu waree euh, loolu euh, nan la leen dikkalee. <coughs> alors ñun étranger la ñu nekkoon donc en deux mille vingt la ñu ñibbi si Sénégal maak samay associé ñu de créer Grumete Grumete nag day day accompagner maanaam bépp agriculteur bépp entrepreneur agricole ak ay agro alimentaire donc euh, pour permettre leen ñoom ñu mën a euh, à travers leurs déchets ñu mën ko valoriser en en courant électricité mais également euh, di produire engrais électricité boobu nag bi ñuy produire da leen di permettre ñoom euh, ñu si mën a alimenter seen i pompe électrique par exemple donc euh, bàyyi jënd gasoil bi mais aussi di leen permettre aussi ñu mën a alimenter ay bâtiments réfrigérés pour éviter les pertes post récolte maanaam ñu bëri dañuy dañuy béy ba pare aliment yooyu noonu parfois day yàqu parce que du ñu am fenn fu ñu ko stocké loolu nag dafa doon problème bu rëy euh, biir Sénégal et de manière générale en Afrique donc maanaam initiative ay jeunes la yu jógee étranger ñëw fii Sénégal euh, décider samp entreprise boobu justement pour accompagner euh, <coughs> secteur boobu cible boobu mais aussi pour créer de l'emploi ak ndaw ñi mën a am xëy donc loolu moo waral. est-ce que yaa ngi euh, sentir yokkute jëm ci béykat yooyu li <laughs> exactement ñu ngi si euh, ñu ngi si ñu ngi sentir ne que euh, malgré les difficultés ñu ngi am benn évolution constante donc par rapport ak béykat yooyu léegi actuellement ni aujourd'hui ñoo ngi ci plus de vingt projet un partout au Sénégal mais aussi ñoo ngi accompagner ay entreprises agroalimentaires. parce que am nañ bureau d'étude bu leen di permettre ñoom ñu mën a xayma déchets yi ñuy produire seen seen biir exploitation ba mën ko valoriser euh, mën a am courant mën a am engrais tamit boo xamante ne ñoom mën nañ ko utiliser seen biir exploitation wala di ko jaayaat euh, yeneen agriculteurs yi mais nag euh, ba léegi seetlu nañ ne amul benn projet bu rëy bu toll noonu biir Sénégal alors que yeneen yeneen pays en Europe am nañ ko maanaam des projet d'envergure buy permettre par exemple euh, ñuy produire euh, ñuy valoriser déchets yu bëri di ko produire di di si produire électricité ak engrais waaye loolu nag li ko waral mooy euh, financement bi dafa jafe même entreprise yu mag agroalimentaire yi pour ñu am financement genre genre financement yooyu dafay jafe lool. lan la ñu war a def rek ngir gën a mën a renforcer secteur bi li <coughs> secteur ba pour ñu renforcer ko déjà il faut que ñu def sensibilisation bu rëy. maanaam xamal nit ñi euh, énergie boobu parce que ñu bëri xamuñu ne énergie boobu existe na donc il faut une grande sensibilisation pour que cible yooyu noonu ñu xam ne <clears throat> am nañ yeneen alternative yu leen di permettre tey ñoom seen biir tool ñuy mën a euh, produire seen propre engrais di produire seen propre euh, énergie maanaam électricité ak gaz bu ñuy toggee sax mën nañ ko produire malheureusement ñu si ñu si bëri xamuñu ko mais aussi bi topp mooy fi wàllu financement bi. wàllu wàllu financement bi dafa jafe je pense que côté boobu nguur gi mënoon na si gën a jàpp ndax euh, agriculteurs yooyu noonu mën a am euh, technologie yu mel noonu donc à travers par exemple des programmes de subvention wala yu demee noonu. alors mbébétu bés bi nag mooy encourager décideurs euh, socio-économiques yi nekk ci Afrique wërngal këpp ñu fexe ba mën a màggal lii di start-up ci wàllu boobu lee sax mën nañu wax ni c'est universel. waaw ci wàllu boobu mën nañu wax ne c'est c'est universel. ndax euh, journée la buy permettre euh, euh, mettre en avant réussite yi nga xamante ne start-up yooyu noonu ñoo ngi koy def mais aussi pas que sur les réussites mais aussi difficultés yi ñuy yi ñuy jànkonteel donc au quotidien nit ñi mën koo xam mais aussi dina permettre boole def benn synergie ci acteur yëpp bépp acteur buy liggéey ci wàllu boobu noonu donc ñu mën a partager seen i idées ñu mën a partager seen i expérience ak di promouvoir tamit entrepreneuriat pour grand public bi population bi mën koo xam. mu mel ni euh, du góor ñi rek jigéen ñi tamit ñoo ngi ci biir muy ay créateurs créatrices euh, d'entreprise ay experts ba ci sax ñi nga xam te ne ñoo yëngatu ci wàllum politique ñu nekk ci innovation création yi tamit euh, jëm ci lépp luy start-up tey mën nañu wax ne xëy na am na évolution ci lu ni mel. oui <coughs> tout à fait mën nañu wax ne que am na évolution bu rëy sax. am na bu évolution bu rëy daanaka euh, léegi dem nañ ba même acteurs mondiaux yi rañ nañ Sénégal ci daal pays yi nga xamante ne def nañ écosystème euh, entrepreneurial boo xamante ne mi mi ngi avancé par rapport ak yeneen pays francophones yi donc loolu déjà c'est c'est une grande réussite ak euh, li ko firndeel aussi mooy <clears throat> ci deux mille vingt et un bu jàll am na plus de deux cent vingt deux millions de dollars yo xamante ay start-up donc entreprise yuy dor ñoo ko ñoo ñoo ko levé donc euh, te ci biir ci biir xaalis boobu tamit am na seize start-up yoo xamante ne levé nañ plus de cent mille dollars donc euh, dollars américain Euh, bu leen di permettre ñoom ñuy nekk ci évolution boobu noonu mën a créer de l'emploi mën a créer de la richesse euh, pour pour Sénégal donc mën nañu wax ne que am na évolution bu rëy. très bien nga nekkoon nag lauréat wu ñeenteelum édition salon du startup Afritech bu MEDES ban yëg-yëg nga amoon jamono jooju. alors jamono jooju noonu euh, ñoo ngi doon door donc di lancer projet GreenMed Farm entreprise boobu noonu. Euh, salon des startups doon benn opportunité bu rëy si ñun ndax euh, permettre nañu ñu am opportunité ci yeneen euh, forme de partenariat ak yeneen organisme mais aussi may nañu visibilité bu rëy waaw ci loolu nag laa jaar pour remercier aussi initiative boobu lancée par le cercle des jeunes entrepreneurs mais en relation avec le MEDES et di def clin d'œil aussi am si Magni Diop pour le travail formidable qu'il fait avec euh, ses équipes donc justement pour mën a jàppale ndaw ñooñu pour ñu pour <coughs> pour ñu créer de la richesse mais aussi pour ñu créer de l'emploi pour ñu mën a am financement aussi donc loolu c'est c'est à saluer. ban conseil rek nga am looy jox ndaw yi nga xamante ne daanaka bëgg nañ bokk ci lu ni mel. li ma leen di conseiller daal euh, mooy déjà euh, que ñu bañ a tëju déjà ñuy rapproché wu entrepreneur yi nga xamante ne door nañ déjà. ñu ngi commencé commencé nañ tabax seeni projet euh, beneen conseil bi ma leen di jox mooy balaa ñu siy dugg tamit ñuy nañ étudier seen marché maanaam ñu xam seeni cible euh, xam nga boo amee produit te xamoo kan kan kan euh, kan kan nga koy jaay ak ñaata nga koy jaay loolu day poser problème donc il faut nga définir sa cible nga xam ban ban ban cible ngay ngay ngay ngay ngay ngay choisir donc justement pour jaay sa produit bu loolu jàllee aussi il faut nga am ay objectifs yu précis donc def ay analyse xool yan concurrent ñoo nekk sa wet nga xool ñoom lu ñuy nan nan la ñuy def ba jaay seeni produits ak wala seen i service donc nga mën a pas nga mën a copier ci ñoom mais nga def stratégie bu lay yow tamit ngay def euh, la même chose ou bien même plus donc beneen wàllu bi mooy euh, surtout la création de contenu côté marketing ainsi ainsi de suite donc stratégie euh, commerciale boobu tamit am na ci solo lool. Cheikh Thiam jërëjëf may fàttali rek ne cofondateur nga waaye tamit manager général u GreenMed Farm waaye tamit nga nekkoon lauréat wu ñeenteelum édition salon du PDS ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf Awa. bu baax a baax. jërëjëf Awa.